tijani sama waay la jambi ñal jaara busu man se jaara jurujub ah ah dama zo rek ne jàpp ndigali dama

waaw mais lii lan la flip mais gap wang wang wang wang wang je je Joel mu ngi biir Joel. du gaaw ma tey boole dana gaaw na gaaw. waaw ah! waaw. <laughs> arbitre looy rey yow <laughs> arbitre nga looy rey yow wang wang wang la <laughs> jarul wax kay loolu dafa jarul wax xanaa na biti Sadio Mané Sadio Mané dafa doon fa doon fubal wàllaay faral Sadio Mané dafa doon fubal wàllaay faral loolu kay Armand sa patron la de da xam ni ngay kii waaw <laughs> foo jëm <laughs> wong wong wong wong waaw waaw waaw waaw ah ah ah ah eh eh, eh kaay kaay kaay. yéegal taxaw ni dina jàppal ni. kii gën a neex na. ara jël sa loxo waaw damay tiré pelanti de. boo tiré gën a neex na waaw. ñaar ñaar la match yow. un un bi de quatre quatre fois. ñan ñoo am kat i waal la wax bambal te match bi daa neex de dafa am niveau quoi mais daa am niveau de. Mati daa am niveau de quoi ah. laa ilaaha illallaah <laughs> Mati daa am niveau de. barki Serigne Touba. <laughs> pass bi mais mais président président waaw demal demal mais président tey tey tey nu mu noonu. tey tey marché bi daal ñu. mais bi dafa mu nee nee président. mais maar mbaa le sept nii nii nii ko nar a defee. le Eh, eh, eh, jeexagul jeexagul jeexagul. le sept non waaw mais oui ma le sept. nañ nañ dem. non loolu moom le sept mais mais mais loolu kaay leen nag. le sept le sept waaw kaay leen waaw nee na kaay leen nag waaw le sept voilà le sept. le sept lépp moo war a set. le sept le sept. le sept. le sept waaw. mais rajo yi mbaa dina wàññeeku le sept. keroog fi nga nekk di ko laajee wala ñëw waaw. non ma di. non mais moom mooy. keroog seet la la doon keroog seet la la doon ñu demaat la seet. walaay Amady keroog seet la la doon ñu dem la seet. yàlla chaque match. mu ne ma kan moo mën a ma ne ko waa léegi mu ne. ba pare prévu. man fu wóolu tubaab laa xam. ba pare ba pare nee na nee na fii ba la set chaque jour set la lay dóor. ah yàlla baax na fii ba la set bi mooy bi mooy trois matchs. trois matchs quatre na ko quatre matchs. quatre matchs. mais lëkk. mais lëkk. waa mboq waa roos. waa roos. waa roos dinañ rey waa mboq de waa roos. ayca waaw waaroos a mën de waaroos waaw waaroos a mën de ah. waaw. boo leen paree ñu génn kay garaaw. paree ñu génn garaaw. wala day wax ak gars yi day wax li mu war a dugal. remplacer lay xool quoi. ñi war a dugal ñu war a toog lay xool. amul kenn wàcc non non non. kenn ku ne nga dellu fa nga taxaw bàyyi Cheikh Abdou Aziz yow taxaw rek bàyyi Cheikh fu mu ne taxaw rek rek yow jàpp jàpp jàpp jàpp joxe jëriñ jàpp. jàpp jox ko jox ak jëf jox njaay rek. aja kenn ku ne dellu fa nga ne woon. yéen nettalikat yi gën la. Sakho. Sakho jëm yow. aja aja aja aja aja aja aja aja amari du ma ko def du ma ko bi génn ci bala rek bi Mamor Mamor eh Mamor bi tag match bu ngi

mais Omar sax match yi door la quoi. waaw xale fu mu ñu ko xale fu mu ñu ko ah. waaw waaw. Mamour sax match yow Mamour sax fi la bokk sax match mu ngi ñëw. mais Mamour lu mu ñu sax bi Mamour fi la bokk Mamour. Mamour eh, eh, bu boobee la bu boobee. waaw eh, Mamour bi waaw Mamour bi Mamour Gueye sax man. yow yaa ni ma Mamour yow yaa ma ko. yaa ngi dugg waaye Mamour Gueye fii yow la bokk. Mamour Gueye fii yow la bokk. Amadou ana. waaw noonu la demee nag. aywa aywa. gis nga extérieur mu dóor. extérieur xam nga extérieur. oui ma. fubalkat baa ngi nii waykat baa ngi nii fubalkat baa ngi nii spectacle lay def nii spectacle li mooy football spectacle match de spectacle. sur le sur le plan. seen naa Amaro. Mbaaru. <laughs> Pura. Hello. yéen ñaar waxtaan leen yéen ñaar waxtaan leen Go on, Ça vient, ça vient.

ñaan ñaan la un bi Dakar loolu neex naa lijjanti de gën a ko bàyyi ko ba xel ñu ñëw jàpp kaay non damay wàcc damay daanu moo tax naka la gën lu bees da ngaa gis loolu polo ko Ablaye yaa ngi dugal yaa ngi dugal dugal ko baay bii bi dugal baal ma waay baal ma waay kii mënu amul dara kii amul dara kii xoolal mu naan heure bi kii xa kii <laughs> ma ne engagé nga de non <laughs> ay yow <laughs> rek yee <laughs> mais engagé nga nag. barke alxuraan. le jeune promoteur. ah. kan mooy le jeune promoteur. am nañ. kii oh, benn benn benn soirée bu dëgg. ah benn soirée. <laughs> te nag mag gi daf koo may mooy yow. <laughs> Eh. waa Ndar. Ali na ngi ñëw. lan waa Casamance Ali na ngi ñëw. non li loolu barke Rasulullah billahi. billahi war na yàlla. Ndar Casamance communication bi. Eh, loolu seen promoteur moo nekk di fubal. waaw ah, waaw nga ndar ak ndar ak fan. ndar ndar Aziz mi ngi fay andi waay ndar. Idaal la Idaal ah, eh, jugal taxawal si kaw waajal. soo ko yàqalee bu dee bu yàqal sa waajal. lan barke Rasulullah léegi. da nga yàqal waali. ooy boo ko yàqalee xam. xool xool li yomb loxo yi duñu benn la tànk yi duñu benn. Ah, si ngeen. 34 la. muy dugg. mais loolu mooy mooy lii. oh. wallaahi le grand jour. bu téye micro bi nga yaakaar ne moom la ñu. xoolal nii rek ay sur le plan lay paas. ay sur le plat xoolal lii rek oh lii ay la ko mën ay mënul lii mais ay ay mënul pas lii mbay ay mënul. eh Jine yow Jine gars yi marqué wuñu Jine xule doo takk sa daal nga dugg nga dugg. gars yi marqué oh góor bu mag bi jël na ko xoolal ah lan muy dut gaay ko ko marqué ko ñëwee marqué mu dut la xoolal oh ko dañ mu dut la. gaa dañu arrière rek. ku ko marqué mu dut la. xool boobu léegi ñoo leen trois match ñoo leen di gagné moo xoolal xoolal moo da koy moo da koy perte non mënul mënul <laughs> mbay ki mën a ngi nii xoolal xoolal ki mën a ngi noonu ki yemoon mbay mbay ki yemoon yaa ndax kuy gagné mbay xoolal xoolal xool ni mu récupéré bal bi xoolal xoolal xoolal ni sur le plan waaye Pogo da nga absenté Pogo da nga yéex Pogo da nga absenté yow da yaa doon marqué waaw waaw ama gaay ma indi seen la alma eh alma ama indi kawasi mais fa ñu ñaay fa ma nga raq ñu ñu wax moo tax moom nar mag ñi ne ko ma mag yee ma ne mag yee pro pro pro la xool doxin bi xool bi xool doxin bi xool doxin bi mbay ah kooka la laay dama wax sama président xaaral xool xoolal bokkuñ sax ko marqué mu mu dud la ku ko marqué loolu ah, la jéem jéem dégg nga voilà xool xooli bokkul xool xooli voilà sur les plats sur les plats la koy joxe xooli bokkul xoolal rek xoolal xoolal teg bi. ay marqué gis nga mënul. sori bokkuñu. ay maay bi match bi de. man su ne neexul neexul dara waaw neexul. yéen andi ay pro. ñun kay Faramareen kese fi nekk ay Faramareen rek fi nekk Aline Aline ballon Aline teg passe bi. yow dafa dafa. waaw man Mbaye tàng na lu ma tàng jub. eh Amady Badiane. Momo daa mën a kan la ji. Mama. Amady génn na Amady génn na. non match bi yàqu na. waaw day dugal ji day dugal ji na rek. Amady. non gars yi dañoo am kii quoi. dugal oh. dugaluma dara ah man damay bàyyi ba nga kër man garaawul man suba laay dugal suba. waaw ban mais li ngeen njëkk a dugal laay dugal. ay eh, boobu lan la woon arrivé lan nga ko dugal yow lan nga ko dugal lu jiitu. barke borom Tuubaa tey merci Mamor. y' a rien. xel la rek zóor la waaw. merci président. ah mais luy loolu man benn équipe la am di baal ko ko baal ko ko baal ko ko baal ko Aline baal na la ko non non. Sabato. Wang wang wang wang wang wang. non Mbaye man rek maa ngi koy bari de waa Linguère man Mbaye Mbaye Gueye eh non non non y a rien y a rien non non non non dugul de non non non non arbitre la ñuy waaj rek arbitre kii professionnel la arbitre kii kii professionnel la kii professionnel la amadi génn terrain bi amadi amadi génn terrain bi kii professionnel la non dugul dugul eh xanaa kon bi waay door na dugul xanaa kon bi waay Yérim Pro la kenn mënu ko tiré lu mu bëggul tiré Yérim lu mu tiré rek baax na xam na li mu def waaw waaw. quel but quel but. waaye bii moom dootul football di quoi. boy bi moom warul football maam warul fi ñëw. wóŋ wóŋ. wóŋ wóŋ. ma mor te moom eh président wang wang mais président boo jëkkoon il vraiment marché bi neex na barke sëñ Touba billaay marché dafa am niveau quoi amul bu neex bi andi ay professionnel teg bi tey emoji bi yow yaa emoji seetaan yow mais dara defaraat seen équipe rek. Amady. mais Mamadou ñun la bokk Amady. wuy Samanthay. la ilaha illa billah Aliou Seck. te naa leen mais jeune promoteur. le seul promoteur le seul promoteur. le seul promoteur waay. yow doomu xaram nga rek. Yérim xoolul Yérim. No, presidente, llévalo. tamit dóoru mag dëgg lay dóor. pro baa ngi nii taxaw ah. xool dox bi ah yow. Uri match bi dafa aju de concentré wul match dafa aju de concentré wul. nañ génn waa génn leen génn waa génn leen rek génn leen terrain bi eh génn leen terrain bi itam ay njóogu ay njóogu ay njóogu ay njóogu no yokkaatal waay Oh! Baal bu merci Mamor Mamor zero ko rek zero ko Mamor zero ko merci Naamaro amoon naa boo ñëwee marqué bi non non def di bay Yeah. 11h waay 11h 11h wax taxawaay waay ne waxuma zero zero non sama ngi ko laax 11h yoro nañ ko seere rek garawul taxawaay na baax rek te bon ma tey mënul yomb nan la mënul yomb ma tey mënul yomb noonu la non c'est bon c'est bon y a rien on gère Pogo del waaw Pogo ñu gère ko waay ñu gère ko waay yow dala amul te taxawaay baax rek te waay na nga taxawaay baax rek yaa rien so so non ah, matt bi neex na nag. mais lii. merci beaucoup jaar noonu la rek. non merci beaucoup. merci jaar amul dara. yow yow jéer bu la xëyee bu la xëyee ay eh, matt bi dafa aju nag foog mu demee nii. Eh! y a rien non non non day muus y a rien dara amul non da ay door manga waay yooyu door manga da nga da nga triché da ay yërëm deful dara de. Zoro Manga da ko doon nax de da ko doon jaay xel mu neex dina xam naa ko dina do ah yow. dina da ko doon jaay xel mu neex rek. ay eh, match bi de ni nga dafa tàng tension bi ma la tension match bi la mënul yomb mënul yomb foofu mu góor tension match bi la. Eh, ah andi andi andi. noonu ñi yàgg nañoo fool ñun noonu ñi yàgg nañoo fool ñun lii moo yàgg <laughs> mba yow yow bu rek ah man Mamor yéen a ko yàlla defal cat waay Mamor waay. Comprendre na. Géej kala matt bi neex na ma dafa tàng quoi non matt bu neexee nii gën nañ ko barke Serigne. Cheikh na bi joge nay gaaw. Wong wong. Berti, berti kakak. Redon, redon. Redon. dugal dugal day am noonu aja baax na baax merci beaucoup Cheikh. dañ faa wéet dañ faa wéet c'est bon baax na ñu liggéeyaat ñu liggéeyaat ñu liggéeyaat. c'est bon oh, non yaari yaa ngi naan eh lan moo am. matt bu am niveau nii mbay non matt bi am na niveau mbay. non baal nañu baal nañu la ko baal nañu la ko Amady baal nañu la ko téye ko baal nañu la ko. jeu bi jeu bi nga bokk ci jeu bi nga bokk joor nga. non y a rien merci Diaz merci beaucoup Diaz. Quel ça merci beaucoup merci beaucoup Bogo merci beaucoup Diaz intelligent le grand Zor li nga def sànq amul benn faute. Kapat, kapat. Markaz, markaz, markaz, markaz, markaz. Booy la may lool de. Tey amul amul amul fi juwaar de. Waaw waaw. Markaz. Bañ lool, bañ lool, bañ. Xam dara, xam dara, xam dara. Ci kaw, ci kaw, ci kaw, ci kaw. Markaz. Bañ lool waaye, markaz. 저돈 많이 가는 아우 우리 골 먹어줘 shit merci Diaz merci Diaz gaynde billahi boy l'homme du Mati Diaz non l'homme du Mati Diaz barki Serigne Bamba eh eh dama gaañ eh yéen bal dama gaañ yéen eh. waaw dañoo dañoo war a arrêté dañuy dañuy arrêté bu gaañ non non il faut naa ñaan zor la kii zor la kii di zor pro nga lan lam di mat l'homme du match. ah moo doon see. Fallou Fallou joxal Fallou. Fallou Fallou Fallou. oh dafa gaañu kay. Eh, ay eh, nabar waay mu gaaw mu gaaw aja. kenn mësu koo fal équipe am nii. xal yaa am na dina rek mën na nekk léegi mu jeex benn. xool na ko toog mu leer ba mu leer ba mu leer. naa dugal gaañ la moom. bul forcer bul forcer. day dugal day dugal. ah loolu laay bañ nag. mais gars yi ba eh wuyu ma gars bañ na loolu ah. ah eh, ka ba. wuyu waay man si ji ne. Ababacar eh, bañ na loolu de. <laughs> ki mooy Mamor boy. la ilaha illallah. joué joué c'est bon. foo ngeen taxaw baax na de. mais bàyyi ko bàyyi ko. mi na mi na xale. Fallou Ndiaye na fi jóge waay. Il a rien, il a rien. Ballon, ballon, mon gars, j'aurai le président. mais bii Aliou fekk jël nga ko mbaa lu ma fekkoon may monté. ah. ku nekk sa Eh, banyak yang dah. Gol, gol aja. Gol. Gol dia. Sekejap, sekejap, sekejap. FPG. Ajak, dia ni fokus. Dia kira baik.

ah Djiné Djiné eh fotoo bal bi yow eh Djiné fotoo bal bi fotoo bal bi waaw ñu relandir na ah. jërëjëf voilà yaa ñu war yaa ñu war libéré na vraiment match bi neex na match bi neex na séeri séeri séeri waaw séeri non séeri en kay séeri série la ah. série la arrêté leen taxaw leen série la léegi pousse leen série waay pousse leen pousse leen <laughs> eh mbay arrêté leen tuuti mbay arrêté mbay mais wang wang wang wang allez allez allez allez waaye jeex na jeex na c'est bon non ñu en tout jeex na jeex na ren a juwal jeex na jeex na kay jeex na. sotti ndaan non matt bu neex yi mënuñu matt bu neex yi mënuñu ko see fii match bu neexee nii mosu ñu woon see fii. yaa jëfati. dafa sonn bàyyi la ko bàyyi la ko mu relax bàyyi ko mu nooy dafa sonn. yaa jëfati. bàyyi la ko mu sonn quatre-vingt-dix mille la joué bàyyi la ko mu noppalu tuuti. bàyyi la ko mu soufflé bàyyi la ko mu soufflé. bàyyi la ko mu soufflé. ndam rek. bàyyi la ko mu soufflé. ana Cheikh Kaay wuy. Cheikh Kaay wuy bàyyi la ko mu soufflé. Bellingham Bellingham Kaay wuy. Bellingham Bellingham Bellingham Ida Ida du mu door dama ko ne boo dugalee ma jàpp jeex na boo dugalee ma jàpp jàpp nga Bellingham Cheikh teewul Cheikh yaayam maa. nang nang fogo. nang nang dafa daa jot a. dafa daa jot a dafa daa jot a. tàng doon métti fogo la fogo. waaw. Kañ la yéen. yor. ah dama yéen yéen yéen. ñoo ñoo xam nga. itam sama waay de. jàmm ja jaara bu sub. bala ma se bi jaara